أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñetti aaya aaya 179 180 181 ñetti aaya yu ñuy jàng juróom benn mbir yooyu ba ca jiitu mooy taqrir mabda anna saada wa shaqa sabaqa biha qalamu alqada wal qadar fa kullun muyassarun lima xuliqa la daneen jàng tey ne sunu borom subhanahu wa taala saxal gi mu saxal principe bu texe ak texee di mbirum texe ak mbirum texee di ci loxoy yàlla la nekk yàlla moo xam kuy texe yàlla moo xam kuy texee di waaye yàlla moo bind ca ëllëg ca asal ne kii day texe wala mu ne kii day texee di loolu ci mbiru yàlla la bokk loolu dafa bokk ci qalamul qada wal qadar borom bi bi mu bindee mu ne ñii dañuy texe ñooñu dañuy texe bi mu bindee mu ne ñii dañuy texee di ñooñu dañuy texee di fa kullu nag mu yassarun lima xuliqa la kenn ku nekk ci ñaari kuréel yooyu la la yàlla bindee day yomb ci yow bu fekkee ki texe jëf jëfu li koy texeel day yomb trop dara du métti ci moom dara du diis su fekkente ne ki yàlla ne kii day texee di kenn munta fexe mu texe wala boroom xam-xam yi naan isal mar'u lam yuxlaq sa'idan faqad xaaba man rabbaahu wa xaabal mulimun fa muusa allazi rabbaahu jibril kaafir fa muusa allazi rabbaahu firawna mursal boroom xam-xam yi nee nañ doomu aadama bu ko yàlla bindee ci azal ne kii day texee di ku yaakaar ci moom perte nga ku yaakaar ci moom ak mbaax perte nga ñu ne lan mooy di misaal bi ñu ne Moussa ñaari Moussa ngi nii Moussa bi Jibril moo ko yar mu nekk yéeféer Moussa bi Moussa Firawna moo ko yar mu nekk ab yonent bu fekkoon ne mbir mi xel kese la ñaari Moussa yi kan mooy nekk yéeféer ah ki firaw na yar ku toll na Jibril yar nit mu nekk yéeféer loolu moo lay wan ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk moo tax fa kullun mu yassarun li ma xuliqa la xataa yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy jooy di yuuxu pour baayam nekk ab jullit mooy baayam ta baay taxam yàlla da ko ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yàlla mooy jubal ku ko neex yow doo jubal ku la neex kon mbokki jullit yi dañuy jàng tey ne mabda anna saada wa shaqa sabaq biha qalamul qada wal qadar loolu ñu naan al qada wal qadar mooy dogal alqada atte ak dogal atte ak dogal yàlla bu xasee atte dogal terminé kenn mënu ci dara yàlla bu xasee atte mu ne lii mooy am mu dogal ko mu ne lii la mu dugg ci coobareem nag machia loolu bu yeboon nit ñi noppalu lu yàlla def kenn mënu ci dërëm kenn mënu ko changé su fekkoon ne nit mën na changer programme yàlla kon Firawna changer programme yàlla ndax keroog ba mu xoolee jabarkat yi jabarkat yi xoolal ko ne ko am na xale buy juddu su juddoo moo lay folli Firawna dafa tëral programme ne ku juddu rey leen ñaata xale lañ rey xam ngeen ko ah rey rey rey ba sonn bu doon yàlla doomu aadama la du programme Moussa mu ñëw ci weer woowu nga xam ne Firawna mu ngi ciy rey ay nit waaye ci weer wi Firawna gën a rey ci la Moussa judd moo tax mbiru yàlla dafa doy waar Firawna Moussa juddu Firawna gisu ko garde yi gisuñu ko yàlla yóbbul ko Firawna ba biir këram ne ko yar ko bu màggee daaneel la folli la ñaareel bi mooy xubuutul aadami ila daraki ahbat min daraki alxaywaan tey dinañ jàng doomu aadama ni ko yàlla tere ne wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr yàlla ni mu terele nit waaye doomu aadama wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba rabu àll gën doomu aadama loolu dañ koy jàng tey mbokk yi xool leen doomu aadama ni mu silwisi tey lekk rek ngay teg ngay tegal doomu aadama nga tegal ko ci table table boobu da nga koy lal nga def lekk bi ci plate plate boobu nga am lekk def ci ay kudd waa ji ñëw nga tegal ko ay mouchoir dugal ko ci ah allahu akbar jox ko ay fourchette jox ko paaka waa ji xoolal niñ ko tegalee muy lekk bu dee xar nan lañ buñ koy tegal lekk nuñ koy def xar nan lañ koy tegalee lekk ginaar nuñ koy mayee lekk fas nuñ koy mayee lekk xoolal doomu a mbindeef yëpp nuñ leen di mayee lekk waaye xoolal doomu aadama tey jii yow mii rek waxuma sax ca tubaab ya waaye yow mii rek sa soxna bu lay tegal lekk yaa ngi nii léegi soo yi demee ñu war la tegal reer dañ la koy tegal façon bu set bu rafet ah yenn saa yi sax ngay lekk ñu tegal la di la upp ah yàlla teral na doomu aadama xoolal doomu aadama yàlla may ko yére pour muy sol pour aw awraam nëbbu waaye ni yàlla terale doomu aadama yëpp doomu aadama tey di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba rab gën doomu aadama su doomu aadama demee tey ba góor a góor di sëy ñu def ko ñu def ko lan civilisation def ko lan mode mode de vie góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy doomu aadama def yaramu neen doomu aadama di toppandoo rab di bënn yaramam di dessiner ah di changer ay bakkan ak i bëñ ak i gémmiñ nga gis nit mu ne la man dama bëgg a nekk rabu àll doomu aadama waxuma sax loolu di sëy ak xaj nga gis kuy jëkkër koo xam ne dafa ne muus mi mooy sama jëkkër nga gis koo xam ne dafa ne fas bay jëkkëram kon li yàlla doon ne thumma radannaahu asfala saafilin dikk na wala dikkul kon danañ jàng tey xubuutu aadami ila darakali ahbab min darakal xaywaan dañuy wax rek waaye wallahi tey rabu àll yi ñoo ñoo ñoo gën yenn doomu aadama yi li ma mbokk bi doon wax mu ne yéen ñi dëkke Dakar yéen ñi dëkke Dakar da ngeen daan gis xaj ak xaj di sëy ci mbedd ay temps kañ ngeen ko gëj a gis léegi nit moo koy def moo tax bi rabu àll yi gisee doomu aadama yi di xëccoog ñoom mbedd mi rab yi ne ñoo ñun ñun kañ ngeen gëj a gis kakatar yéen ñi nekk ci jàkk jëpp laa ko laaj kañ ngeen gëj a gis kakatar bi doomu aadama yi jëlee melokaanu kakatar kakatar échappé dem yoonam ne man noo fi xejatuma fi doomu aadama yi bi ñuy xëccoog rabu àll yi seen jikko ah la rab yi bàyyi yenn yi ne ñoom pare nañ ci kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa zalika indama yakfuru bi rabbi kañ la doomu aadama di wàcc ba torox ba rab gën ko mooy su weddee boromam xanaa xamul leen ne ku am diine gëm boromam rek moo civilisé mooy rus a def dara wala da ngay fekk benn waay boo xam ne dafa màndi ba dem dem dem àll ba ci tubéyam ah lan moo tax mu def loolu nga fekk doomu aadama di dóor dégg ngeen barki démb ki ngeen dégg mu rey baayam dugal ko ci teen doomu aadama bu weddee yàlla rek dootul amati dootul amati valeur ak lu mu mën a am nag dootul amati personnalité dootul amati fulla saa yoo weddee yàlla alku nga ak koo mën a nekk mbalaanu kiiraayu bi la doon yiir terminé dem na ndax ngëm yàlla mooy defar nit yàlla li mu tere doomu aadama yëpp xool leen lan la ci doomu aadama di bàyyi te du ko jox valeur yàlla daf ñu tere sàngara sàngara boo ko toppee fan lay mujjee yow day yàq sa dund yàlla daf ñu tere drogue yamba héroïne ak lii mandiloo nit kullu muskirin xamr su ko dooma ba adama defee lànk di ko def fu muy mujjee ak yow yàlla daf ñu tere njaaloo soo koy def fu muy mujjee ak yow jëlal benn bu nekk bu yàlla tere rek da ngay gis ndeysaan doomu aadama bu ko bàyyee rek am valeur waaye boo ci dëkkee rek ñi nga dëkkal sax dañ lay xeeb xoolal démb démb xaw ma barki démb dañoo naroon organiser Sénégal sabaru caga ah tey la woon sabaru caga caga yu jóge Mali caga yu jóge Guinée caga yu jële Côte d'Ivoire caga yu Sénégal daje Grand Théâtre préfet bu Ndakaaru moo ko éliminé tey ne loolu du fi am parce que nit ñi yëg nañ ko commencé révolté internet bi imaam yi commencé wax ñu tiit éliminé ko xoolal lii sabar te kat xam ngeen kan moo ko doon organisé Pape Diouf ñun ay ñun fan lañ nekk ñun ci ban adduna la ñuy dund ñun ci ban réew la nekk te lu ci ruslu mooy chaque jour Sénégal bu fi lu bon nekkee nit ñi dañuy ah fii kay kilifa yu baax yi fii kay kili kilifa yu baax yooyu xanaa yëguñu lii di fi xew kilifa yu baax yooyu xanaa yëguñu lii di xew ci réew mi ñoom lan mooy seen lan mooy seen seen mbaax googu lan lay représenté ah lan mooy sunu mbir tey lan mooy sunu mbir ci sunu réew mi. xanaa xamu leen ne valeur yaa ngi jeex jikko yaa ngi dem ëllëg si biir dañoo nar a alku dañoo nar a torox yii nii di raam yëpp buñ bàyyee ba mu sax ci réew mi terminé kenn doot ko fi mën a diilati sabaru caga ba pare li doy waar mooy bu ko ay jigéen sax doon organisé mais góor góor guy organisé sabar la ilaha illallah góor guy organisé sabar kon li ñu doon wax léegi-léegi mooy doomu aadama wàcc wàcc ba rab rab gën doomu aadama kañ bi mu weddee yàlla tabaraka wa taala lan moo tax nit di weddi yàlla mooy yàlla dafa may nit ay jumtukaay yu muy jëfandikoo élément yooyu yàlla defal doomu aadama bu ko doomu aadama defee taatil mooy éliminer bu nit éliminer bëtam bu nit éliminer xelam bu nit éliminer ay noppam bu nit éliminer xolam téer bi yàqu na xel lan lay jëriñ xalaat yow bu fekkee ne sa xel mi doo ci xalaat lu ñëw rek baax na jeex na su fekkee sa bët yi doo ci gis su fekkee sa nopp yi doo ci dégg su fekkee sa xol bi doo ci comprendre yow amatoo njëriñ yaag rabu àll yéen a yem moo tax da ngeen dégg yàlla naan ulaika kal an'am ci aaya yi léegi ci kanam ñii ñu ngi mel ne ay rab kal an'am la leen yàlla accusé allahu akbar ñun fan lañ toll wallahi dëgg la su doomu aadama demee ba yàlla di ko nattaleeg rabu àll ak doomu aadama fi ko yàlla tegoon nga xam ne yàlla dafa teral nit ba ne malaaka yi nañ ko sujjóotal usjudu li aadama yàlla jëkkati ko fu nekk gënal ko lépp wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila lu nekk yàlla nee na gënal naa ko doomu aadama tey doomu aadama dem ba mel ne ab rabu àll ndax lan ndax weddi yàlla ndax éliminer élément yi ko yàlla defal pour mu mun a comprendre pour mu mun a xam fu muy teg tànkam ci dund pour mu xam lan moo koy jubaleeg boroomam pour mu xam lan mooy mission am ci kaw suuf ñetteel mooy bayaan annal bala kaamin fi gaflatin an ayatillahi wal irad anha tey dana jàng leeral gun yàlla di leeralal ne li waral càggante gi yëpp lan moo ko def mooy al irad an ayatillah mooy dummóoyu li yàlla wax Sénégal fii ñu toll tey dara waralu ko lu dul dañoo dummóoyu kàddu yàlla dañoo dummóoyu kàddu yàlla ba ñu dummóoyoo alxuraanu yàlla bi topp ay caaxaan topp ay fo topp ay xarfa fuufa topp ay mbir yoo xamante ne yaakaar na ne dinañ fa baax ci la ñu alko da ngay gis Sénégal ku naan nit ñi kaay leen ma baaxal leen waaye du indi alxuraan fii ku fi ñëw di nga baax waaye doo gis alxuraan léegi léegi benn takk lañ jógee wallahi alazim takk takk takk da ngay xam ne nit ñi fii ñi fi gëm yàlla ñu tuuti lañ balaa takk bi di am ñetti takk la woon ci benn jàkk imaam bi mu ne ku bëgg a jël kàddu jëlal kàddu yéen ñi nga xam ne dañ leen yabal ngeen ñëw takk ñaari nit jóg wax ci côté ku góor ku jigéen ñooñu première takk bi deuxième ñaari nit wax troisième benn waa ji jóg sant yàlla tudd boroomam ah wane màggal tawhid keneen ki jóg moom daal di dugg ci bokkaale xam nga lu doy waar ki doon waxu bokkaale bi mu paree benn waaye dafa gestu ne ko jërëjëf waay jërëjëf waay voilà pour jéem a naqaral kii doon wax fii non c'est c'est grave Sénégal Sénégal kenn du wax yàlla boo waxee yàlla da nga gis ñëpp mer kanam yi commencé lëndëm parce que yàlla nga wax waaye boo waxee leneen da nga gis kanam yi commencé firéeku nit ñi commencé kontaan commencé benn waaye nee na ma démb sa xutba bi waaye gaa yëpp a mer jumaa ji waaye bi nga tuddee benn sëriñ rek nga gis ku ne benn waaye wax na ma ko démb mu ne ma sa xutba bi démb ñëpp a mer waaye bi nga tuddee diw mu ne ñi ma toogaloon ñëpp dañoo kontaan waaye loolu la alxuraan alxuraan moo ko wax wa iza zukira allahu wahda ismaazat qulubu allazina la yuminuna bil axira wa ida zukira min dunihi ida hum yastabsirun al alquran la yàlla moo ko wax gaa yi boo nee yàlla rek day mel ne da nga leen wax dara mel ne da nga leen saaga lan lan yàlla def lu sax bëgguñu ko wax buñ sax buñ fi doon wax soxna nit sax da ngay da ngay kontaan sa soxna ku baax la sa soxna ak a gëm yàlla sa soxna ak a rafet ak a mun a toogee ah bu ñuy wax sa papa kazalik bu ñuy wax sa maam kazalik bu ñuy wax sa benn mbokk bu ñu mais bu ñuy wax yàlla rek nit ñi mer dañ xoolaat suñu bopp amul suñu problème dara waralul càggante gi ñu nekk lu dul al irad an kitabillah téere yàlla bi ñu sànni fële kenn jubluwul téere bi loolu moo ñu indi problème jullit mënta am iman mënta gëm yàlla lu dul mu dund alquranul karim non alquran mooy téere buy defar nit yenent bi fan la defaree aboubacar umar xanaa déggu leen yàlla lu mu wax nit ñi nuñ meloon balaa alquran ñëw wa kuntum ala shafa xufratin min an naar yéen ñëpp da ngeen demoon ba kàmbu safara fa anqazakum minha mu daal leen di musal lan la leen musale mooy alquran alquran moo ñëw jëlee leen ci pind boobu ñëpp a demoon ba ci wasara wetu safara bi bay daanu yeneen bi ñëw indi alquran jël ñëpp kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaas min azulumaati ila nuur ah beneen ba ca tegu mooy al amru bi duaa illahi taala bi asmaihi lxusna tey dana njàng buñ buggee ñaan yan terme yan baat ci turu yàlla yi moom lañ war a utiliser di ñaan lu mel ne ya rab ya rahman ya aziz ya jabbar yu mel nii dañu bëgg nit buy ñaan yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu koy ñaan ci ay turam yu sell yi juróomeel mooy danañ jàng tey araam gi mu araamal jël turu yàlla yi di ko falsifié ay doomu aadama ñu ngi ci àddina bi dara du seen métier dara du seen liggéey xëy ñu wàcc ñu lu dul di njabare wala di xërëme alxuraan ak turu yàlla yi jël ko di ko falsifié yàlla tabaraka wa taala dafa am ay tur yu sell mu bëgg ñu ko ci ñaan di ko ci bàkk di ko ci tagge ak ay melokaan mu araam ci ñun ñu jël melokaanu bokkaale yàlla yi di falsifier turu yàlla xam ngeen ne yàlla dafa wax ne moom mu ngi tudd allah yahud yi ak yéeféer yi bokkaalekat yi ba ñuy filsi ba ñuy falsifier turu yàlla boobu tudd allah lan lañ jël laata yàlla tudd al aziz bañ koy falsifier lan lañ wax uzza yàlla tudd mannaan bañ koy falsifié lu ñu wax manaata loolu di nga ko fekk fii tey am na ñoo xam ne bu ñuy tudd yàlla au lieu ñu ne allah dañ naan hu hu hu hu hu hu hu rek ba jàkka ji di riir nga gis saay gaay di yuux hu hu luy hu allahu mais hu la ñuy wax hu hu la ilaha illa allah loolu falsifié turu yàlla la da ngay gis ñooy bind fatilan du ngeen koy gis ci bunt kër yi ñenn ñi bind jadilan ñenn ñi bind baduuhu laduuhu loolu du turu yàlla yooyu yëpp benn du ci turu yàlla fatil lu muy tekki ci arab yàlla dafa am ay turam yu sell téeméer bu manqué benn man ahsaha daxalal janna mbokki jullit yi juróom-benneel mooy ahlul janna allazina xuliqu laha hum allazina yahduuna bilkitaabi wa sunna wa yaqdawna bihima dafa am yàlla tabaraka wa taala bi mu bindee aljanna daf ko bindal ay nitam mu ne ñii ñooy waa aljanna ñooñu day yomb ci ñoom ñu dund alquran ak sunna parce que yàlla moo leen bind ne ñuy àjjana lañ jëm moo tax pour ñu dund alquran ak sunna day yomb ci ñoom pour ñu jëfe sunna day yomb ci ñoom pour ñu dund alquran day yomb ci ñoom pour ñu def lu baax day yeewu day yomb ci ñoom lu tax ndax kat yàlla moo leen bind ne ñi dañuy dugg aljanna ci tënk bu gàtt bu gaaw suñu boolee li ñuy jëlee ci ay ñetti aaya yi danañ fekk muy juróomi mbir yooyu nga xam ne juróom benn mbir yooyu nga xam ne moom lañ doon wax léegi léegi su ñu ñëwee ci alquran ci ñetti aaya yi ñu war a jël tey borom bi tabaraka wa taala mu ne walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها borom bi ne wala qad ca dëgg-dëgg maa ngi giñ ci sama màggaay zaraana man yàlla sàkkal na du foofu ah kay da nga tardé de dangaa tëb dangaa dangaa am yow ñëwul de du fii ay fii la kay walaqad zara'na li jahannama kasiran min al jinni wal ins man yàlla dama waajal dama sakkal zara'a xalaqna man yàlla maa defaral li jahannama man yàlla safara jahannama maa ko sakkal kasiran lu bëree bëri min al jinni ci ay jinne wal ins ak ay nit gis nga ndeke yàlla bi mu defalee jahannama ba pare dafa sàkk ay nit mu ne ñii fii lañ jëm mu sàkk ay jinne mu ne ñii fii lañ jëm ku ci mun dara fii nag mooy al qadaa wal qadar ak al machia kon kenn dina waaw yàlla sàkk safara jahannama mu jël ay nit ak ay jinne mu ne ñii fii lañ jëm kon yàlla da leen tooñ am na ko wax loolu ndax ñi kat yàlla moo leen sàkk mu ne ñii fii lañ jëm waaw yàlla moo ko def xam nga lu tax mu def ko mooy borom sañ-sañ bi moo ko ñeme def maa moom sama ginaar ginaar gi am ay doom ginaar gi nen su ma neexee ma baxal wala du ma baxal ah tontu wu leen de su ma neexee baxal su ma omelette nag. ah su ma defee sur le plat nag damay toj ginaar gi kéem ñu ne yow yow li nga def jaaduwul ba topp ginaar gi rek di baxal di am la rek di si noor ba li ngay def di tam du yërëm ginaar gi su ma fi rombee ne ni ñëw ci doom yi nag ma lekk ci damaa tooñ su ma fi bàyyee doom yi ñëw ci ndey jeeg bàyyi ji nag dama leen tooñ lu tax lu tax li ma am sañ-sañ ñett yi yëpp. maa ko moom ah lu ma neex ma def ah yow nga moom saala lu la neex nga def yàlla moom li mu moom nga ni du def lu ko neex kon yow yaa am yow yaa am sañ-sañ yàlla amul sañ-sañ kan mooy moom kan moo moom walillahi xazainu samawati wal ard yàlla nee na magasin yëpp lépp maa ko moom asamaan ak suuf lépp maa ko moom amul lu fi kenn moom koo fi dégg ñu ne moom na dara may ko tuuti léegi nga dégg ñu ne dee na keneen jël ko kon moomoo dara sa montre bi nga takk sax moomoo ko de dañ la ko abal rek ay temps deewal boo dee nga xam ne moomoo ko léegi nga gis sa doom takk ko naan waaye montre paa bi laa yor ne rek gis nga ko waaye non ay paa bi xamuloo lim takk seer la woon quoi paa bi doon naan di xoolal montre bi nu gee mais yow booy wax ne paa bi nga sol nga waaye gis nga ko de paa bi de bi mu góowee lii lañ ma jox quoi naa ko ci xool quoi kon moo moo ko woon dañ la ko abaloon wala ndeysaan gis nga kon moomu ñu fi dërëm yàlla moom lépp moo tax lépp moo koy doon naat walillahi miiraasu samawaat wala yëpp yàlla koy doon naat ñëpp ay dee yàlla toog ba mu neex ko mu lem asamaan ak suuf lépp ci loxo ndey jooram mu woo àdduna nag ne ko yaa dunya ay na qusuuruki ana sato yi ana pale yi yaa dunya ayna abnauki aduna ana say doom ayna aljababira ayna almuluk ayna abnaul muluk kenn du tont laa mujiba illa allah ñun dañu war a delluwaat ci yàlla xam yàlla du sunu moroom yàlla dafa sàkkal jahannama safara jahannama safara la benn xur la bu nekk ci biir safara la safara yëpp dañuy muslu yàlla ci jahannama yeneen bi alei sat salaam dégg na benn benn benn riir benn son bu am comme dënu bi affaire bi defee ba jeex yeneen bi ne benn xeer la bu ñu sànni woon juróom-ñaar fukki at ci biir jahannama mu ngi doog a laal suuf jahannama xóot na de waaye yàlla lan na ko def lu tax mu defar ko limaza xalaqa allahu jahannama lu tax yàlla bind jahannama wax na ko mu ne dama fay dugal ay jinne ak ay nit kon li aaya bi doon wax ne nit ak jinne la ñu togg jëf ñoom la wa maa xalaqtul jinna wal ins beneen bi lu ñu war a gën a jàng xam ne alxuraan waxu yàlla la nit ak jinne kan lañu njëkk a sàkk nit ak jinne jinne moo fi jiitu nit man na gis nga ñaari aaya yëpp yàlla lan lay wax wala ñetti aaya yi minal jinnati wannaas walaqad zarana li jahannama kasiran minal gis nga wa ma xalaqtul jinna wal gis nga yëpp jinne la yàlla di jiital parce que jinne moo fi jiitu nit ah jinne moo jiitu nit ci kaw suuf bal jinne yi sax ñoo nekkoon ci kaw suuf balaa doomu aadama di ñëw bi jinne yi yàqee suuf si ci la yàlla tabaraka wa taala jël malaaka yi boole leen ak iblis mi leen doon waar ne ko nañu génne jinne yi ci suuf si boobu iblis ku baax la woon boobu weddeegul yàlla alquran moo ko wax kaana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi gis nga kaana min al jinni ca jinne yi la nekkoon waaye ba mu demee ba fin ba fa fasaqa an amri rabbi mu kàccoore saay-saay ci santaane boroomam bu mu ko sant ne ko su jootal mu bañ moo tax àdduna jinne yee fi nekkoon ba ñu yàqee la leen yàlla booleeg malaaka yi malaaka yi génne leen ñu dugg biir géej ñeneen ñi dugg ci xur yi ñeneen ñi dugg ci montagne yi moo tax fii li ëpp ci jinne yi fii lañ dëkk ci biir géej gi loolu ñu doon dem ci géej gi xam nañ ko ñu doon def xawma lan barça wala barça léeg-léeg ngay seen dëkk gis ay làmp gaal gi daw ngay seen làmp yi loo ñëw muy dem dëkku jinne la da ngay dem ba ba dee ñoom ñëpp dañuy dee kenn du yegg noonu ngay séenee tali bi tàng nga gis lëla nga yaakaar ne ndox la ngay daw naan ndox maa ngi na le soo ñëwee mu rëkki la waat lu toll noonu nga dem ba yegg ba ngay dox ba dee noonu la jinne yi def doomu aadama yi ci biir géej gi bal sax saxaaba boobu gisoon dajjaal fan la ko gis ci benn île île bi fu mu nekk ci biir géej moo tax jinne yi yëpp ci xur yi lañ dëkk ak àll yi ak biir géej ak ci montagne yi bëri na ku dem ci àll digg njolloor da ngay jommi ndax jinne yi ñoo fa nekk suuf sëpp la leen yàlla dégagé sunu borom subhanahu wa taala ne waajal naa jinne yi ak nit ñi al ins nit yow yàlla lu tax nga préparel doomu aadama nga waajal ko nga defaral ko moo ginne nga defaral leen safara yàlla mu ne lahum qulubun laa yafqahuna bi dama leen a may ay xol waaye duñ ci comprendre dara xol xol mooy élément xel dafa bokk ci élément yi nga xam ne ci doomu aadama ñoom ñooy njëkk a composé nit bi ko yàlla bindee mani yu ba bare ba doomu aadama di defaru bopp bët tànk loxo yi biir bi xol mooy njëkk a defaru xol mooy élément bi njëkk a composé wu ci doomu aadama moo tax xol muy nit yonent bi nee na ala inna fil jasadi mudra ma ne doomu aadama am na benn suuxu yàpp bu nekk ci moom isa salaha salaha al jasadu kullu su nit baax su suux boobu baaxee rek nit baax wa isa fasada fasada al jasadu kullu su suux boobu bonee lépp bon yonent bi yàlla wax ala al qalb moom mooy xol wa ma sumiya al qalbu illa li yataqallab lu tax ñu tuddee ko al qalbu mooy ni muy def tik tik di wëlbatiiku di wëlbatiiku te xol yépp nag mi ngi ci loxo ñaari baaraami yàlla xol yépp mi ngi ci diggante ñaari baaraami yàlla yàlla da koy wëlbati nu mu ko neexee mën ngaa nekk léegi jullit balaa ngoon nga nekk yéeféer mën ngaa nekk léegi yéeféer balaa ngoon nga nekk jullit ndax yàlla mooy wëlbati xol yi moo tax ngeen dégg chaque jour yonent bi bokk ci ñaanam mu naan rabbana laa tuzid qulubana baada is wala ngeen dégg mu naan allahuma yaa musabbitul qulub sabbit qalbi wala qulubana ala taatik doomu aadama yàlla da ko may xol doomu aadama war di dégg ci xolam dégg di ci comprendre waaye bu fekkee doomu aadama dafa am xol te xol bi jëriñu ko dara ci wàllu digganteem ak boroomam xam ngeen ni am na xawaas yoo xam ne mu ngi ci doomu aadama yooyu dafay jël ndeysaan yooyu day dimbali doomu aadama pour mu baax bët ci la bokk nopp ci la bokk xol ci la bokk su fekkee xol bi li muy jël lu baax la bët yi li muy jël dafa baax nopp yi li muy jël dafa baax lépp luy jël bu yàggee li ngay jël lu muy def day day fees ah day fees lu fees nu muy def day tuuru booy jël alxuraan di jël sunna di jël askar di jël bët di jël ba bët bi fees mu tuuru ci xol bi ah nopp yi jël ba fees mu tuuru ci xol bi gémmiñ gi jël ba fees mu tuuru ci xol bi yaram boobu nu muy def yaram bi day baax waaye bu fekkee lu bon ngay jël après tamit moom day day fees lu bon loolu bu feesee nu muy def day tuuru jàng ngeen ko kalla barraana lan moo xomaatal xol bi maakaanu yegg si bun liñ doon jël kon booy jël lu baax sa xol bi day fees lu baax day tuuru ci yaram bi yaram bi day def lu baax bët yi day xool lu baax nopp yi day déglu lu baax c'est parce que dafa fees mais booy jël lu bon day dem ba xol bi day xomaat xol bi day feebar loolu ngeen dégg yàlla naan fi qulubihim marad wala mu ne summa qasat qulubuhum min baadi zalika fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa kon yàlla dafa yóbbu jinne ak nit safara lu tax parce que daf ko jox élément boo xam ne jëfandikoo ndax benn kese la mu ne walahum ayunun laa yubsiruuna biha may leen ay bët luñ ci gis mukk allahu akbar bët lu muy jëriñ nit ah ah waxuma sax ci wàllu diine yenn saa nga gis kuy xullee ci àdduna bañ ko ne moytul ci àdduna benn waaye day wax mu ne accident yi accident oto yi ñi am bët ak gumba yi lan moo ëpp lu oto di rey question la bu ma leen laaj yéen ñëpp accident yi ngi am Sénégal ñi oto yi di mbëkk ah ñii xoole ak ñii gumba ñu ëpp li nga toog fukki at doo dégg gumba gu ñu mbëkk wala lu tax parce que gumba xelam lay xoolee doomu aadama nag day tëñëx tëñëxi di xulle bañ ne la taxawal yo l sëñ bi jërëjëf waay te waa jàng ak téeméeri bët ah gis nga bët lu muy jëriñ du xool lu tax léegi ñun duñ gis li gën a doy waar nag mooy du ñu gis lu xoolal lu ñuy jëriñ lu ñuy jëriñ lañ dul gis moo wax leen benn mbir paquet cigarette yu bees yi lu ñu ci def paquet cigarette yu bees yi loolu lañ ci bindaa mais lan lañ ci dessiné benn paa bu feebar feebar bi dafa ragallu wala dafa dafa dafa dafa rafet ah dafa ragallu boo ko xoolee sax doo bëgg a xoolaat ki ci tëdd ñu def ko fu nekk ay tiwo ñu ne la lii nekk ci paquet bii moo def nii kii ah du lan lañ def nit ñaa ngi tox ba léegi wala toxuñ gis nañ loolu wala gisuñu ko kon bëri lu muy jëriñ kon yéen déggu leen wax bi yow ñu ne la lii lii ngay def nii fii la lay yóbbu nga continuer di tux am na ku nekk suñu kër sax boo ko dafa ne paa bi dafa bëgg a dee.
dégg nga donc buy tux ko tux loolu la yor paa bi daa bëgg a dee rek.
moo tax mu tëdd nii dégg nga léegi kooku suñ la nee am na bët yow lay wax est-ce que bëtam jëriñoo nag ah loolu mooy suñu problème ñun ñi ñëpp mooy suñuy bët a ngi ne weng wengaaral lii ngi nii day jëriñe lii ngi nii day lor par exemple bàyyi loolu jëral passerelle yi ñu defar pont yi pont yi dañuy gis ay xar ak i muus di yéeg ci pont yi di jéggi ah ñan ñooy traversé autoroute bi ah te di njëkkanteeg oto bi de oto baa ngi di ñëw nga gis ko xam nga ne kii bu la laalee moom mooy pare nga waaye nga ñëw jaar foofu fee ñu la defaral pour nga jaar ñu defaral ñu ne yow fii lañ la defaral fii bu fekkee dëkk bu amul passerelle la ñu defal leen ay bande yu vert yu weex ñu ne fii ngay jaar doomu aadama yi dañu fiy romb ya wala gisu leen ko waaw kon ñun suñu bët yi lu mu ñuy jëriñ ñun ñëpp lañ laaj suñu loolu question xol bi ak bët bi lan lay jëriñ bu fi lan moo taxoon yàlla defal la bët du pour nga gis boo gisee nga jëriñu ah nga xam fi ngay teg sa tànk nga xam li nga war a def ak li nga war te def ah allahu akbar est-ce que tey ñu ngi gis ñun li ñuy lor est-ce que ñu ngi gis lu ñuy jëriñ est-ce que ñu ngi gis fu ñu war a teg suñu tànk est-ce que ñu ngi gis dëgg dëgg dëgg lan lañ war a dund suñu diine est-ce que gis nañ ko kon kay jaadu na yàlla yóbbu ñu safara ku toll nii ñu may la élément bu muy bu rëy bii defal la bët ah ñu ne la na nga def attention ba di xool ci lu lay jëriñ benn waaye nee na euh, da doon da doon misaal mu ne papam bu ndaw yaa am papa bu ndawam papam bu ndaw mu ne ko toogal papa ji toog mu ne ko papa yow da ngaa mel ne benn waaye bu nekkoon ci àllu Afrique àll bu lëndëm muy dox ci àll bi ba ci yàgg mu dégg gaynde di riir gaynde di yuuxu mu geesu gis ngandu mu gaynde ci ginnaawam moom kenn ci àll bi mu daw gaynde gi topp ko mu daw gaynde gi topp ko mu xëlu gaynde gi topp ko mu gis benn teen mu tëb ne pëccëx ci teen bi téye ci buum bi gaynde gi nekk ci kaw di ko xaar nee na mu téye ci buum gi mu ne nii mu gis benn yeew ci suufu teen bi mu ne allahu akbar muy xalaat moom naka lay def ba génn su demee ci suuf yeew bi dina ko wan bu génnee gaynde gi dina ko lekk mu jékki-jékki rek buum googu mu langaamu woon mu gis ñaari jinax ñëw di ko dagg mu naan wuy ñaari jinax ñëw di lekk buum gi gi buum gi commencé dagg beneen problème nga noonu xanaa muy xool nu muy échappé mu ne nii ci biir teen bi mu gis benn ay yamba ay yamba yamba mu ne nii rek yamba yi daw bi yamba yi dawee rek mu gis lem lem ah mu dugal loxo bi affaire yi neen ko mu commencé fàtte na fàtte na fàtte na ñaari ma nga ca lem nga masha allah allahu akbar ba càgg mu dugal ñaari loxo képp na buum gi ak tànk yi de dugal ñaari loxo xam ngeen xam ngeen gaynde gi mooy lan mooy malakal mawt teen bi xam ngeen mooy lan mooy bàmmeel xam ngeen ñaari jinax yi lan la mooy guddeeg bëccëg xam ngeen buum gi lan la mooy sa dund sunu dund guddeeg bëccëg nga koy lekk ñu ngi xoolal rek guddeeg bëccëg mu ngi lekk sunu dund ay ñun konte wuñ loolu dara xam ngeen lem boobu la la lem bi lem bi mooy àdduna ndeysaan mooy àdduna lii ñuy gis ni àdduna topp ci àdduna rek fekk yow ndeysaan malakal mawti mu ngi la topp ci biir bàmmeel nga nar a jëm yeew bi mu ngi lay xaar guddeeg bëccëg ñu ngi lekk sa dund yow ndeysaan fa fa de mu ne ko yow papa yow nii nga mel sa dund yëpp léegi mu jeex waaye ndeysaan yaa ngi topp ci àdduna rek lem bi neex na rek nga topp ci lem bi waaye léegi waa ji ñaari jinax yi ñi ngi ŋeeñ di lekk buum gi moom mi ngi ci lem bi fàtte na gaynde gi fàtte na yeew bi léegi bu buum gi dagee nag
yow la ñu
ndeysaan mooy sunu dund da nga jékki-jékki rek ñu ne diw dee na nga ni démb ñoo doon entraînement ndeysaan dañ may nettali benn waaye amo 5 nee nañ ci stade bi la dee xaw ma amo 5 la dee dafa ñëw fekk waa koñ bi di football ñu ne ko boy doo doo mu ne non indiwu ma sama équipement ñu ne ko non non non non foog nga dugg mu ne non indiwu ma équipe ñu ne ko non da ngay dugg mu ne abal leen moom ndeysaan mu simmee ñu abal ko bi ñu ko abalee yére mu sol rek benn waaye dóor ko bal fii mu daal di daan dee moom laalul bal bi bal bi da ko laal moom dañ ko dóor bal bi rek mu daan dee ndeysaan gis ngeen de ku ko ne koo ko ne fii ngay dee waaw ñëwul woon sax pour football ñu ne ko far far nga football abal leen ma maaya ñu abal ko première bal ci la dee jamonoy passé sang naa koo xam ne dafa wàcc guddee jabaram ni ko yow foo nekk tey guddee nga ni mu ne waaw maa ngi nii di ñëw maa ngi nii jël naa oto maa ngi sama oto mu ñëw ba Liberté 6 ndeysaan mënatul dawal oto bi mu nekk booy bi mu àndal booy kaay jël oto bi man de vraiment mënatuma dawal wàcc toog ci kanam booy bi di dawal gis ko muy tudd yàlla booy bi gis ko muy ñàkk mu ne ko première clinique boo gis daal nañ jàdd parce que daal dama feebar bala ñuy gis clinique mu dee reer boobu jabar ji toggoon ko ak naan ko da ngaa guddee reerul reer bi dañu war a bàyyi xel suñu bopp ñaata yoon la ñuy gis ci internet bi ci biir compétition plein plein jour bi dee ci biir ah wala gis na loolu ci biir compétition plein waa ji di daw ci terrain bi mu leer na ne kii dafa jàppoon condition nangam mbir këng waaye ñëw ba ci terrain bi dee ñaata yoon lañ ko gis ah waaw léegi mun ñun nag noonu lañ nar a toogee rek ba kañ te gaynde gaa ngi nii de teen baa ngi nii de jaan jaa ngi nii de ñaari jinax yaa ngi nii de buum gaa ngi nii de lem baa ngi nii bu ñu lem bi nag fàtte loolu musiba yi yëpp ñun alku nanu mbokk jullit yi yàlla waxaat ne wala hum aadanun la yasmauna biha doomu aadama yi dem leen a may nopp waaye duñu dégg ndeysaan laay duñu dégg ndeysaan allahu akbar borom baa ngi naan inna charra dawaab li gën a yées ci rabi àll yi ind allah ca yàlla mooy ñoo xam ne duñu dégg duñu gis ba pare amuñu xel wala doomu aadama rek li yàlla defal ko la pour mu mën a jëriñoo élément yi noppam yi bëtam yi xolam waaye yii yëpp éléments yi la doomu aadama éliminé xol bi du comprendre bët yi du gis nopp yi du dégg wala hum aadaanun la yasmauna biha duñ dégg mukk ñaata yoon la ñuy waar nit ñi ñaata ñaata nit la waaraate yi di ko ñi koy waar ñaata yoon la ñuy delloo nit ci yàlla ñaata bala sa am na ñoo xam ne bëgguñu dégg waaraate waaw nii la ñuy def non non bu ma envoyé tii waay non yow nekk fu dul tiital nit ñi quoi yow da nga tiitalaat rek yenn saa yi ñu woo ma téléphone yow non vraiment yow da kii mais ne da nga soxor quoi nga soxor trop ma ne ma lan laa wax bu soxor mais lii ma yàllaa ko wax di lii tey boo koy wax wala qad zarana li jahannama kasira min al jinni wa ins ñu ne yaa ko wax yaa ko wax moo xuma ko de la am la an na jahannama min al jinni wa ins boo ko firee ñu ne benn waa benn jigéen moom mu ne ma waaw di yenn saa yi nag da ñuy wax ajjana tuuti nag ajjana ndeysaan Sénégal lu neex rek la ñu bëgg waaw bu saa bu ñu dekkee bu yonent bi jiitoo rek nga gis ñu génn xaas bi joxe yooyu la ñu bëgg ndeysaan yooyu nag amul ci diine diine dañu war a jaamu yàlla diine dara seddu ci waaw diine dara yomb ci waaw diine yoonu borom xam yonente bi nee na li ma gën a yéem mooy ku bëgg a àjjana tëdd di nelaw àdduna rek boo fi bëggee château wala nga bëgg fi 4-4 wala nga bëgg fi wala nga bëgg fi nooy def yarhamukallah ngay sonn benn xale dafa reewoon ndeysaan papa ji am xala ah xaalis rek xale bi lu ko neex lay def bu naanee ci kaas sax da koy sànni mu toj bu ko papa ji joxe xaalis day ñandu ci 10 000 yi feep sànni fale papa ji ne waa kii moom daal di xëy rek ne ko yow génnal kër gi ñu ne ko yow da ngay génne sa doom kër mu ne waaw kii na génn kër gi ndax kii dafa yàqu mu génn dem ci àll bi commencé jéngu ut sémmiñ di dagg ay matt di jaay di jaay dagg di jaay kii nit ñi fekk ko muy souffrir bu guddi jotee mu lal basang tëdd ci suufu garab yi ay carton benn waaye ñëw ne papa ji sa doom bi sonn na de doo ko dimbali ngay indiwaat ko mu ne dama ngay indi ko ñëw ne ko sa papa nee na nga ñëw ngeen waxtaan mu ñëw takk ndigg li ñëw taxaw papa ñu ne ko ñaata weer nga def ci àll bi mu ne def naa def naa 6 mois ci àll bi ñu ne ko looy doon def mu ne damay liggéey papa ñu ne ko li nga liggéey ñaata nga amagum mu ne commencé naa dajale tuuti papa ñu ne ma xool mu jox papa ji papa ji jël benn 10 000 fe mu ne ay sama xaalis papa ji mu ne ah comment mu ne lii maa ko ñàkk soo ko yàqee rek may fay waaw yow ko déet waay ah yow du fii nga nekkoon di yàq waaw xaw ma de xaw ma dama lii moom maa ko ñàkk kii waaw waaw bañ nag waaw mu ngi nii nag gis nga nii la méttee man tamit li ma ñàkk nga bu ko yàq ah gis nga kon nag yàq baaxul toogal ci kër gi comme xam nga ne léegi kenn du yàq ah gis nga waaye doomu aadama yi xoolal ni ñuy yàqee xoolal li ñu yàlla may nga koy yàq yàlla may la bët may la xel may lay lëb nga sànni ko fële nekk ci mboy mboy gi ñu dem tey ba rabu àll yi tane ñu rabu àll yi tane ñu tane ñu tane ñu rabu àll tey doomu tane doomu aadama ndeysaan am na benn waaye bu def vidéo ci internet bi mu ne xoolal ndeysaan fas bi mu ngi jox moroomam mu ngi lekk ndeysaan xoolal xaj bi mu ngi sauver mboromam bi xoolal mu mu ne xoolal doomu aadama yi ni ñuy reyantee kii moom mu ngi vidéo la waa ji def nit ñi di reyante yor ay kalachnikov yor ay bomb ñii yor ay mart ñii di lakk ay nit nga gis rabu àll yi ñoom di sauver ku nekk di sauver moroomam darab dee ñu tane tey moo tax suñu borom ci aaya bi ba mu ba mu waxee lii doomu aadama yi ba pare mu ne ulaika kal an'am ñii ñu ngi mel ne ay rab gars yi benn waaye nee na bi bi yàlla waxee lii ulaika kal an'am waa ja koy nettali dafa reelu nag mu ne rab yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla ne ko yow yàlla yow tamit nag yow borom asamaan ak suuf yow borom kun fa yakun nga may doomu aadama xel ñun nga may ñu tuuti xel nga ñuy xas ba pare di ñu mel ak doomu aadama yàlla mu ne balhum adal ñoo leen gën a bon rab yi kontaan yàlla nee na doomu aadama moo gën a bon rabu àll léegi te dëgg la kaw suuf si lan moo ko yàq est-ce que xar yeeg béy yi ñoo ko nag dem leen ngeen ne borom kër gi sa kër gi nga sécuriser nii def ko ay weñ ndax xar yeeg musée tax lu mu lay wax ni day tabax kër def ci ay xottu butéel ñeneen ñi def ci ay feer yu def nii mu ñawal ko ut gardien mu yor pistolet nga ut waa ji du nelaw guddi mu taxaw soo waa ji fekkoon gardien bi wala borom kër nga ne ko waaw li lii yëpp lu tax lu mu lay wax muus yi gaynde yi picc yi lu mu lay wax ah pour nit la nit ñu bon ñi wala doomu aadama fu mu toll day lépp la yàq kon sunu borom bu ñu nee ulaika kal an'am ñii ñi ngi mel ne ay rab waaye mu ne balhum adal yamu fa de mu ne ulaika humul ghafilun ñi ñaa ñokk conscience su doomu aadama demee ba góor juutal góor di sëy ak moom góor fan lay sëy ak góor question laa ko laaj ñëpp góor bu juutalee góor di séy ak moom fan lay séy fan ah fi muy dee fi muy demee duus moom ci boppam bu jëloon baaraamam mu dugal ko foofu wurr mu dugg mu génne mu ne nii ndax dina fa dugal awraam xoola xel xoola xel nga jël nga jël ndeysaan benn waaye nee na mu ne ma hôpital ba mu ne ma góor jigéen ñi seen taat yëpp a yàqu fu ñu toog dañuy kuusu ndax foofu la gars yi di séy ak ñoom mu ne fu ñu toog ndox day sotteeku te foofu la ñuy séy ak ñoom day dem ba seen taat yi yàqu allahu akbar oh doomu aadama moo doy waar doomu aadama moo bon yi ngeen defe ne góor mun na jàpp góor di bànneexu ci moom bon bon suñ demee tey ba bëgg a soppi adduna bi góor jigéen ñi léegi bëgg a ëpp doole ci adduna bi ba ñun sax suñu constitution ñu ko ci ñu ko ci légaliser constitution Sénégal bu bees bi nangu na góor jigéen am nañ ministère amu nañ wala amul lan ngeen bind ci lan ministère boobu lan la ministère de la femme et la femme et da Et du genre.
et de genre genre genre lan genre yàlla dafa bind genre genre da ngeen mës a gis fii ku sol ñu ne kii genre la genre genre góor dina romb nga ne xale bu góor bi eh xale bu jigéen bi waaye eh genre ah, man de gisaguma eh genre genre nag mooy góor jigéen dañu bëggul wax góor jigéen ñeme ko parce que xam nañ dëkk bi ñu ne genre bu yàggee genre boobu dañ koy changer noonu la ñuy def noonu la ñuy def ba un jour fekk mbon gi dëgër na nit ñi ñàkk nañ jom ngëm yàlla wàññeeku nañ ñu ne bu ñu kenn sonal homosexuel góor jigéen bu ñu kenn fàtt góor jigéen ñi taxaw ne "Eh, ñoo tay ñoo ngi nii comme ni ñu koy defee Canada comme ni ñu koy defee Belgique comme ni ñu koy defee France nga gis ñaari góor ànd nga gis ñu naan kee mooy jëkkër ji ñaari góor ànd ñu naan kan mooy jëkkër ji kuy jabar ji léegi doomu aadama nee na dafa silvisé ku silvisé di nga def loolu ñaari jigéen ànd ñu ne jëkkër ak jabar ñaari jigéen léegi xam ngeen ñu ngi koy jàngal xale yi boo demee France tey di nga fa fekk ñu ne xale bu góor da nga koy bàyyi lu ko neex sol kenn du imposer sa doom sol ba pare di leen jàngal xale bu ndaw bu bu toll ci jardin ñu ko- ñu ñu koy jàngal soo bëggee fowe sa awra soo bëggee foo nooy fowe sa awra ba mën yu génn Hmm. yàlla seede ne adduna bi ñu ngi jëm foo xam ne ah gis nga noonu yàlla defoon xaw mu luut xëy rek daal di benn asamaan ak suuf foofu lañ jëm loo ko waral mooy lii yàlla di wax nii borom bi nee na walillaahi ñeel na yàlla al asma ay tur al xusna yu rafet yàlla dafa am ay tur yu rafet tur yu sell tur yu set tur yu neex yooyu nag yonent bi nee na inna lillahi tisatun wa tisina asma mia illa wahid mu ne man ahsaha daxala aljanna wa huwa witrun yuhibul witra yàlla am na téeméeri tur yu manqué benn moom yàlla dafa tóol bëgg na lu tóol moo tax ñu bëgg doomu aadama buy ñaan ci tur yooyu sooy ñaan yàlla ci tur yu sell yooyu da ngay xool li nga bëgg nga ñaan ci yàlla kon soo bëggee yërmande ban tur ngay jël yaa rahman soo bëggee yàlla jéggal la ban ngay jël yaa gafuur soo bëggee wërsëg looy jël yaa razaq soo bëggee xam-xam booy jël yaa alim noonu ngay def soo bëggee dara tur yooyu ngay jël nga ñaan ci yàlla aaya bi nag wàcc na keroog ba yéeféeri màkka déggee benn waay naan yaa rahman yaa rahim yaa mu ne oo xoolal xoolal xoolal xoolal julli di ñoom ñu ne benn yàlla lañ ba pare lañ am ba pare xoolal kii di ñaan naan yaa rahmaanu yaa rahim kon kay ñaar la ñaar lañ aaya bi daal di wàcc yàlla mu ne walillahi asmaul husna faduuhu biha yàlla nee na am na ay tur yu rafet nañ ma ci ñaan ku may woo na ma woo ci tur yooyu udu llaha aw yudu rahman ayyamma tadu falahu asmaul husna yàlla dafa am ay tur yu sell ak ay melokaan yu rafet bëgg ku ko ci ñaanee bal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla am na téeméeri tur bu manqué benn mu ne mia illa waahid benn moo ci manqué mu ne man ahsaaha daxalal janna ku ko peeg dugg aljanna maanaam ku ko mokkal ku ko takk sa dënn dugg aljanna nee na tur yooyu dañoo tóol yàlla dafa tóol bëgg lu tóol ah yàlla wi kenn la witr yàlla dafa tóol du ñaar du ñett yàlla kenn la kon tur yaa ngi noonu moom yàlla mu ne wazaru lazina yulhiduuna fi asmaai bàyyi li nga xam ne dañuy falsifier turu yàlla yi jël turu yàlla changé ko waaw da ngay gis tey benn turu yàlla boo xam ne buñ la ko doon bindal day fees jàkka ji waaw ñu ne waa ji lii turu yàlla la mu toog nag yor ngandum kurus di xëcc benn per benn per waaw di xëcc moo tax dof yi bëri da ngay jékki-jékki rek fekk xamoo ne turu jinne la jinne bi ne faraax ne la ay loo bëgg benn waaye dañ ko joxoon benn tur turu jinne mu koy wirde di ko wirde ci biir àll bi jinne bi ne faax ci biir néeg bi mu xool ko gisul bopp bi mu xool gisul tànk yi jinne bi ne ko loo bëgg mu ne ko xaaxaam dafa tiit seen kër fees xaaxaam ron la li fees xaaxaam biir kër gi fees xaaxaam fépp xaaxaam yi topp ko ñu ngi moo moo tax ñu bëri fii wird moo leen dof loo wird beneen mooy saxaaba yonent bi ndax dégg ngeen saxaaba bu dof dama leen laaj dégg ngeen ñu ne ndeysaan yonent bi amoon na saxaaba benn saxaaba waaye dafa mujj dof xam nga dof saxaaba yi dofuñu woon ndax ñoom dañoo yemoon ci li leen yàlla indil astaghfirullah boo koy def fii ba suba doo dof alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah fii ba suba doo dof ah waaye ay badoohoog fatilan yaa jadilan yaa maxas maxsi yaa xarma xur yaa farax-farax yaa yooyu ba ngay dof léegi bul sax bul sax sonn léegi nga dof yenu say bopp yenu say sagar parce que loolu du tur yàlla astaghfirullah du dof loo ke waaw tur yàlla du dof loo nit saa yoo déggee nit dof na dafa utiliser leneen lu dul turu yàlla dafa laal leneen da nga ne gars yi seen saa ñu ne kii li mu laal da koo pour doole de kii il faut mu ëpp la doole parce que du yëfu nit ki ngay woo day ñëw day lay wuyu si waaw dañ lay jox sax cuuraay ne la cuuraay bi boo ko defee day ñëw place bi nga koy defee lii nga koy defee ah dàllu nangam ngay sol deru nangam ngay def sangu nangam ngay def boo koy wax waa ji ñëw nga dem def ko di ko defi di dëgër dëgër lu fit ndax bëgg alal ndax bëgg nangam waa ji ñëw ne la nga yanu say tubé jaar nii daw naan maa tay maa ko wax waaw maa ko wax kay di xuli di xuloo ñu naan kii ku muy waxal waa yaa ngi taxaw sa kanam yow rek yaa koy gis lu ko fi jaar lu ko fi jaar de deux mooy jinne yi nga associé ñu lay liggéeyal booy waaja dee jinne da lay trahir wala gis nga ñi am ñu am fii jinne yëpp dañuy mujj ndeysaan nga dégg sëñ bi laa seet ñu ne dafa fatu kenn mënatu ko gis waxal li ngay wax rek léegi kii moo ko fi toogal fekk dafa dof ñu ngi ci biir néeg bu ñu tëj ko billaahi wallaahi wa taala bëri na kilifa bu ñuy ziyaare fii ba ci àgg kenn mënatu la mën a ziyaare dafa dof mu ngi ci biir néeg bu ñu denc ku ko jege mu màtt la day màttaate parce que jinne yi war nañ ko loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax mbokk jullit yi jinne ëpp naa ëpp naa àndal looy dee jinne da ngay dégg ñu ne diw am na am na jabaru jinne loo koy dee jabaru nit bi doy na nit ñi mënoo leen jeexal loolu jabaru jinne ah saa ngi dañuy wax kii daa am faru rab Sénégal moo neex wazaru lazina yulxiduuna fi asmaihi bàyyi leen ñi nga xam ne dañuy falsifier turu yàlla yi ñooñu sayujzawna ma kaanu yamaluun yàlla nee na dinaa leen fay li ñu koy li ñuy def nii waaw képp kuy foye turu yàlla wala nga koy falsifier wala nga ciy def lu ci bokkut te loolu dafa bëri tey ci biir réew mi nga dégg ku naan non non kii moom rawaan la ay rawaan da ngay dégg ñu ne rawaan nga dégg ñii ne rab ñii ne seytaane ñii ne jinne yëpp benn la fajkatu rab bi faj fajkatu rawaan bi ñoom ñëpp ay jinne lañ yor dafa may façon jinne mooy original bi su nekkee seytaane baaxatul su nekkee ifrit musiba la su nekkee maarit musiba la yooyu dañuy jommalaate yi ñooy paralysé nit jinne ay fas mooy original mu mel ne ñu ne nit suñu nee nit après ñu ne criminel ah suñu nee criminel lan la mooy ku baaxatul reykatu nit voilà mu ngi noonu moo ne ñu ne sey jinne wala ñu ne seytaane ifrit day jommalaate ku daje mu guddi mu jommala mais benn kese la jinne la ay tur nag la ñu am ci biir jinne yi dañoo am ay tur yaa ngeen yaakaar na suratu naml gis ngeen ba Suleymaan di wax ak jinne yi wa qaala ifritun min al jinn benn ngandum jinne moo ko ne man day siège bii mën naa koo indi balaa ngay jóg fii mu ne ko loolu daa yàgg Hmm. benn jinne ne ko man mun naa koo indi mun a ana mu ne mu ngi nii allahu akbar xam ngeen ne kooku ponkal la de keneen ko ne balaa ngay jóg mun naa koo indi mu ne ko dafa yàgg keneen ko ne boo xoolee ci kaw balaa nga koo indi mun naa ko mu ne ko dafa yàgg keneen ki ne ko mun naa koo indi ana mu ne ko mu ngi nii gis ngeen kon jinne am na pouvoir de ah waaye xoolal iman moo ëpp jinne pouvoir ki am iman moo ëpp jinne pouvoir allahu akbar waaye boo amul iman nag gars yi fowee la ah sanguloo la nga gis kilifa kilifa bu def yaramu neen ci sele bi yoon def yaramu neen ni ko yaayam juree di sang guddi wala nga bàyyi ba guddi nga kii borom kër benn jigéen de moom ma ko nettali mu ne sama jëkkër dama bàyyi ba mu yéeg ci kaw garab gi guddi di sangu ma ne kii kan la mu daw mu ne maa ko tey mu ne wépp ci prix di koy bu xale yi jógee nag mu ne ko ah damaa xamul woon kan la di mu ne ma toog ci néeg bi di ree xoolal borom kër guddi nga nekk ci kaw garab di sangu ah ci affaire jinne waaw parce que moom nee na fi mu dëkk.
waaw daa am salle de bain. day dugg ci biir ba mën a dugg ci salle de bain bu mu dugg ci salle de bain moom mu ñaan ñaanu sunu bopp.
allahu akbar waaw léegi bu mu dugg rek nee na jaan la gis mu dafa yuuxu.
jinne la
mais bu ñu yuuxoo comme ni bu ñu defee ñaan ci biir pax bi la dugg.
jinne bi dugg ci pax bi waaw ci biir pax bi.
ci bi waaw waaw moo tax yeneen di baay sasam ah foofu fan nga mën a jaan jaan ah déet yonent moo tax mu jox ñu as bu ñuy bu ñuy dugg tuwaale ñu wax ñaan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth parce que yonent bi ne foofu mooy seen kër dafa yuuxu comme ni.
fa lañ nekk kon kay du dëkk loolu du loolu kenn waru ko weddi yonent nee na jinne yi ñu ngi dugg ci biir douche ndeysaan benn jigéen nee na ah oustaz man sama doom bi daf maa tiital ndax nee na ma jinne yi ñu ngi ci biir douche bi te léegi moom xam na ñaan bi moom booy dugg rek mu ne xubus xubus xubus man tamit ah man tamit léegi booy dugg rek ma ne xubus xubus xubus xubus xubus ma ne ko xale bi xub mu ne ma ah man kay xaw ma xubus xubus laa ci xam man kay léegi man tamit xubus xubus rek ma ne ko du xubus xubus di mu ne man de sama yoon nekku ci sama doom bi daal dégg naa moom la muy wax am na xubus xubus man tamit ah xubus xubus walla xale bu ndaw ndeysaan yaay booy dugg ci dus del wax ñaan bi allahumma inni a'udhu bika min alxubusi wal xabaa'is munul wax loolu moom mu yaakaar ne xubus xubus la borom bi nee na wa mimman xalaqna umma yahduuna bil haqq wa bihi yaadiluun allahu akbar wa mimman xalaqna am na ci ñi nga xam ne bind naa loon umma benn génération boo xam ne yahduuna bil haqq ñooñu dañuy jub rek ci dëgg lu àdduna yi dëf dëng-dëng lu àdduna sànq lu fo yu bëri caaxaan baa caaxaan ñooñu yahduuna bil haqq dañuy jub rek ci dëgg waaye wa bihi yaadiluun ci dëgg googu ca la ñuy sax éternellement ba yowmal qiyaamati ca la ñuy dund qawlan wa amalan wa xukman wa qadaan wa adaban wa xulqan danañ ko dund ci pas-pas dund ko ci wax dund ko ci jëf dund ko ci atte dund ko ci teggin waaye dund ko ci yar yàlla nee na jaala allahu minhum wa xasharana fi zumratihim yàlla na yàlla boole ci ñooñu mbooloo moom yàlla na ci yàlla def lii moo doon dar si tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh